ndeysaan mbokki Leewtoo déggal mbayang doole njom ne doole xoytaaye Mamadou Thiam Dakar Famara Sarr Tambacounda catégorie 100 kilos quart de finale compétition individuelle Famara Sarr Tambacounda Bébé Diène Dakar quart de finale attention la ilaha illallah moo jàkkaarloog ñun Bébé Diène nañu woon ginnaaw ñu ngi lewoto ñu ngi lewoto Bébé Diène Famara Sarr arbitre naan booy doxee ci kaw ligne bi danaa avertir sukk na benn moom Famara bébé Diène Famara Sarr ñu ngi lewtoo songo nañu songo nañu attention attention ligne ba arbitre sifflé na Famara Famara Sarr Tambacounda nañu bébé moo xaw a xees wala moo mbar mu xees attention plaqué nañ bébé Diène daan na ko la ilaha illallah Thiaka Aboubacar Sarr Kédougou Thiaka moo woon ginnaaw Thiaka Faye moo woon ginnaaw Aboubacar eh Sarren bi Aboubacar Sarr ceinture rouge Thiaka Faye ceinture bleue catégorie 100 kilos kan moo ciy dem demi kan moo ci dem demi-finale ci ñoom ñaar Caaka Faye moo fay des attention jël nañ Caaka Caaka bañ na Aboubacar Sarr Aboubacar Sarr ndeysaan Caaka Faye Aboubacar Sarr Caaka Faye moo ngemboo ngembu ñuul li Aboubacar Sarr ngemboo ngembu lu bi diggante Kédougou la ak Kaolack Kaolack moon won ginnaaw Kédougou jàkkaarloog nun attention Caaka Faye jàpp na tànk ba eh eh caaka génn na ah mboot ma mboot ma arbitre tas na leen mboot ma jotul a àgg dañu avertir caaka ndax da nga génn ah, ah, caaka Aboubacar Sarr dem na